concernant ñàkk <laughs> signal waaw signal waaw d'accord comme que dafa ñëw euh, parce que en matière procès pénal mhm. objectif bi je pense ñu ñëpp mooy la manifestation de la vérité maanaam dëgg feeñ mhm. et ñun ñëpp tey nii si wàllum yoon mhm. euh, muy avocat bi muy procureur muy magistrat bi muy euh, greffier bi ñun ñëpp tey on est des auxiliaires de justice suñu objectif mooy mooy objectif boobu noonu maanaam dëgg feeñ et je pense que tey procureur de la République donte tamit am na fu mu far donte tamit am na une mission mm. si euh, si procès tey nii euh, bi mu demee ba ne non euh, à défaut de viol mhm. corruption de jeunesse je pense que loolu noon tey du manifestation de vérité moo ko intéressé woon li ko intéressé woon moo doon ñu teg daan à tout prix vaille que vaille coûte ko coûte Euh, Ousmane Sonko ñun nag suñu rôle tey Walfadjri mooy cette manifestation de la vérité gindi askanu Sénégal wax leen exactement lan moo xew lan mooy les enjeux wan leen nekk aussi que lii nii c'est éminemment politique wala c'est éminemment politique parce que la question c'était est-ce qu'il y a viol est-ce qu'il y euh, lu mu tëddati menace de mort mm-hmm. euh, Pierre-Edouard Sank wax na kaaw Bill Clinton wax na kaaw DSK mais ñoom ñëpp ils ont reconnu Euh, acte sexuel ñoom ñëpp tey nii euh, lu tax seen dossier yi jafe woon c'était parce que y avait un début de quelque chose euh, en tout cas ñu mun leen téye alors que fii nii jusqu'à présent l'acte sexuel n'est pas établi mm-hmm. donc loolu la c'est-à-dire que munoo tey sax requalification doon na fekk tey au moins ñu prouver démontrer qu'il y a l'acte sexuel léegi nag nga ñëw si consentement est-ce que day bénéficier de doute wala bénéficier wul de doute mhm. Tariq Ramadan bërki démb dañ ko acquitté mhm. te moom foofu noonu sax reconnaître na ak ndaw si hôtel euh, que y eu des choses am na euh, lu mu tuddati ay relations sexuelles foofu noonu te teewul on l'a acquitté mhm. on l'a acquitté parce qu'il y avait pas assez de charges parce que ndaw si tamit amoon ay euh, anam yu mu doon fen alors que fii nii non seulement Euh, nekkul woon hôtel wala auberge euh, si salon de massage la c'est-à-dire que fii nii lu tax yëf yi grave c'est parce que euh, képp ku dem si salon de massage pour def ay soins nit ku am moins de vingt et un ans jox la prodiguer la donc soins yooyu noonu tey tu encours avec la jurisprudence Sonko une peine de deux ans mhm. donc c'est très grave parce que tey salon de massage léegi ak décision bi bi nu am tey mhm. dem nañ ba léegi dañ ko méngaleeg lieu de débauche. Mhm. donc képp ku dem tey nii salon de massage jàngat boobu noonu tey mooy euh, soo demee salon de massage su fekkee ab xale moo la massé. d'accord wala moo la jox ay soins xamal ne que mun ne la tëj. Euh, si corruption de jeunesse. définition bi entre parenthèse foofu maanaam suñu étudiants yi nekk université. Mhm. bu ñu leen laajoon ci examen par exemple. poser leen question boobu kan moo ci nekk koo xam ne tontu na tontu bu baax wala ko tontul tontu bu baax bi ak yan criter lañ koy bu boobaa est-ce créé wul sax benn. képp képp euh, questionnement boo xam ne rek la wul sax ci wàllu suñu yoon ci bopp. waaw exactement moo tax ma ne la man déjà notion bi nu indi corruption de jeunesse loolu moo tax euh, sama première intervention dama ne. benn yoon philosophie laa ko jàngee. corruption de jeunesse loolu soo demee si Socrate. corruption de jeunesse lañ ko teg daan ba rey ko. d'accord donc euh, corruption de jeunesse moom. Mhm. du lu ma jàng en droit def naa sept ans Sorbonne cinq mhm. ans Sorbonne deux ans école des formations barreau de Paris. Mhm. te corruption de jeunesse mosuma ko dégg. d'accord du lu nu du lu nu maîtriser du lu nu xam. donc étudiant bi rax si doole tey man mi nekk un professionnel du droit étudiant bi nga xamante ni euh, moo ngi jàng les notions de droit. xëy na dina am plus de difficulté. donc loolu noonu tey euh, corruption de jeunesse bu ñu teg nii en tout cas li muy wane tey mooy les salon de massage képp ku fay dem euh, xamal ne que tu encours avec cette jurisprudence tu encours tey une peine de prison ferme et euh, loolu noonu nag c'est c'est dramatique parce que si dinañ si ñëwaat léegi Cheikh le temps ñu dem fële ca diggante Rufisque ak Bargny fekk fa Najib Sagna Najib ñu ngi lay nuyu. waaw man la Euh, situation bi nag fii euh, buñ ko mën a wax moo di euh, mbetteel la ñëpp di wax parce que dama naa dugg si kër yi bëree di laaj lan mooy seen xalaat si mbir mi wala ay askan si tali bi wala ay même ay journaliste ñoom lu ñu wax mooy ils ont été déçus mooy am nañu benn mbetteel boo xam ne ni parce que ñoom tout le monde croyait que que ak coow yëpp ak dizaine de morts yu fa am réellement amoon na viol mais au à la au finish les gens ont dit que dañoo ils ont été déçus dañu am bëtteel parce que lu ñoo xalaat euh, amu fi loolu moo tax nag ndaw yi bu verdict bu tombé bu ñëwee ba léegi euh, ay ay affrontement sport dira sport dira moo fi am yoo xam ne ni xale dañu gën a si tali bi euh, taal fi daaw fi ay daaw yu ndaw ak policiers yi policiers yi leen topp moo tax nag bari ñu fii lakk nañu seen seen lakk de bari ñu bu ñemee fi kees kees bu nekk fii euh, kees terre bi bu nekk fi si Tëngëj euh, te tamit euh, jéem nañu ko saccagé donc ñaari saccage moo fi am mooy ñi ak kees de ak keesu terre bu nekk fii Tëngëj waaye situation bi fii les gars demande lan mooy question bu ñuy wax la mooy la mooy corruption de jeunesse mm-hmm. ñu bëri loolu yëpp xam. muy askan wi ba population yi xam ñu parce que même suñu si fi nekk bu ñu laajee ñoom mosuñu ko dégg tamit donc question loo xam ne nii les gens se posent la question est-ce que réellement euh, loolu am na est-ce que amul la mooy corruption de jeunesse euh, lu ma mën a wax en grosso modo mooy en gros pardon lu ma mën a wax mooy fii euh, mbetteel moo nekk euh, loo xam ne sentiment bu gën a partagé si Rufisquois yi te ndaw yaa ngi bi tamit di def lu ñu mën a wax maanaam mën a def pour que situation ñu mën a un peu revendiquer wala ni que Sonko war nañ ko libéré euh, euh, parce que jëm nañ jàpp kat tous les coins de Rufisque mais taxul ndaw yi ñu ngi génne de temps en temps pour mën a def lu ñu mën a wax. ñu ngi lay jaajëfal bu baax baax di la bàyyi rek nga suivre ñu foofu information bi lu ci am rek lu bees atia alors euh, Cheikh yaa ngi nekkoon ci corruption de jeunesse mi ngi mel ne interrogation yi nga yi nga am euh, moom la sénégale yu bëri am mooy incompréhension bu totale euh, ci par rapport ak notion boobu nga xamante ni dégg nañ ko tey. waaw comme ni ma ko waxee sànq rek délit fourre-tout la délit fourre-tout la c'est il faut condamner pour condamner et le viol n'est pas caractérisé parce que je pense que surtout médias yi tey joué nañ un grand rôle. tey ku si mel ni Pape Ndiaye sama xel moo ngi si pap Ndiaye parce que vraiment liggéeyu affaire Sweet Beauté bi sonnoon na si te gindi na vraiment askanu Sénégal et euh, donc ba léegi sooram euh, kiiwagul xamagunu ba léegi moo ngi euh, en tout cas si loxo yoon. Mhm. donc tey nii corruption de jeunesse boobu noonu tey en tout cas c' est c' est un précédent c' très dangereux. Mhm. ndaxte requalification bi rek. déjà amul woon. pour euh, pour ñu pour ñu teg ko fii la question aujourd'hui primordiale depuis deux ans c'était est-ce qu'il y a viol ou pas <laughs> est-ce qu'il y a menace de mort ou pas et jusqu'à présent euh, la pénétration l'acte de pénétration mmh. <laughs> n'a jamais été établi <laughs> donc tey nii waxuñu woon sax bénéfice du doute maanaam avocat sax bénéfice du doute c'était l'absence totale de charge mmh. envers Ousmane Sonko contrairement nag ak dossier viol yi am yëpp ci àdduna à chaque fois il y a un début de de quelque chose en élément matériel mais fii nii du élément matériel du élément intentionnel du élément légal qui montre que euh, y a l'acte sexuel en tout cas y a euh, nu nu euh, war a euh, Sonko. Mmh Pierre yaa ngi koy wax sànq moom mi ngi mel ni moom moo ci euh, génn euh, te pourtant euh, accusation yi mu doon yëkkati doon ko teg ci kaw Ousmane Sonko nekkul woon dafa doon ñëw di ma jox xaalis wala dafa doon ñëw di ma di ma wu dafa ni Ousmane Sonko dafa doon menacé teg ci menace yooyu aussi di ko violé absolument te te Cheikh dafa def benn corrélation bu bu graw ci entre Socrate ak ak li am fii di tey moi je me dis que l'histoire à défaut de bégayer au moins elle elle se répète parce que Socrate moom la ñu xam dans l'histoire ku ñu njëkk rey pour euh, euh, corruption de de la jeunesse mais bañ demee ba coow li bëri pour jugement bi et tout ça dañ ne dañ nañ ko si yokkalaat yeneen euh, chef d'accusation ñu ni non reconnaissance des dieux traditionnels grecs ak introduction de nouvelles divinités dans la cité <laughs> waaw donc tey tey en fait tey en 2023 même même chose même chose bi la ñu la ñu la ñu assisté bañ demee ba ne Ousmane Sonko violé na euh, euh, dafa def menace de mort ñu dem ba gis ni loolu euh, sottiwul ñu ni donc nañ si yokk corruption de la de la jeunesse donc ça renvoie un peu à l'histoire de Socrate donc Socrate rappelle un peu Oscar parce que Oscar Sierra c'était le nom de code bu ñu tuddee woon Ousmane Sonko ci